Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàgg naa joxe ndigal ci ñim ko sañ jox ñu jàng alxuraan jàng ay xasida def ay salaatu ala nabi sàkk sarax ngir réew mi am jàmm loolu est-ce que Mamadou Ibra Kane mos naa taxaw rafetlu ko déedéet Abdoulaye Wade mi fi nekkoon njiitu réewum Sénégal ginnaaw bi mu demee wéy di am ay jafe-jafe ak njiitu mi di président Macky Sall ñu bari dugal ci seen loxo mbir ma sottiwul Serigne Mountakha Mbacké basiru moo mujj a def médiation bi ba jubóole ñaar ñooñu est-ce que Mamadou Ibra Kane rafetlu woon na taxawaayu Serigne Mountakha jamono jamono jooju déedéet université bi nga xamante ni Serigne Mountakha Mbacké Bassirou maa ngi koy tabaxlu fii ci Touba lu ëpp fanweer ak juróom-ñaar ci ay milliards ndax Serigne bi xam na ne am réew munta jëm fenn te ña nekk ca réew ma amuñu xam-xam université boobu sëriñ bi di tabaxlu est-ce que Mamadou Ibra kan mos naa taxaw rafetlu ko déedéet Serigne Mountakha Mbacké Bassirou taxawaay bi nga xam ne amee na ko ci woppi coronavirus génn lu toll si ñaari téeméer ci ay millions dugal ko ci est-ce que na ko rafetlu na ko ci woppi coronavirus ji est-ce que Mamoudou Ibra Kane mos na koo rafetlu déedéet keroog bi marché Ocass tàkkee ba am ñu bari am si ay jafe-jafe am ñu si ñàkk seen alal mu Mountakha génne ay millions yu takk daal leen koy dimbalee est-ce que Mamoudou Ibra Kane mos na koo rafetlu déedéet fan yi ñu génn bi senegal yëngoo ba am lu toll ci fukk ak ñaar wala lu sa topp ci ay nit ñàkk seen bakkan ñu bari am ci ay gaañu gaañu ñu bari ñàkk ci seen alal réew mi jax ñenn sax jàppoon réew mi dafay tàkk Serigne Mountakha dugal ci loxoom guyu est-ce que Mamadou Ibra Kane mos na koo rafetlu déedéet sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru jël lu toll ci cinquante millions daal di koy dimbalee ñi nga xam ne seen i mbokk daat nañuy faatu si jàppante yi amoon ci Sénégal ak ñi nga xam ne dañu see di loroog ñi si am ay gaañu gaañu cinquante millions yooyu sëriñ Muntaxa daal koy génne ñu jox ko Hizbut Tarqiyyah ngir nag mu daal koy séddale est-ce que Mamadou mos na koo rafetlu déedéet centre jalis bi nga xamante ma ngi koy tabaxlu fii ci Touba ngir ñi toll ci cent vingt mille ngir nag def séance su dialyse est-ce que Mamadou Ibra Kane rafetlu na centre de dialyse bi nga xam ne sëriñ bi ma ngi koy tabaxlu fii ci Touba déedéet Mamadou Ibra Kane lan la tekk ci réew mi bay wax kan la sëriñ bi war a recevoir ak kan la sëriñ bi war te warta recevoir Mamadou Ibra Kane moom dafa umpale yoonu murita sëriñ bi amul xaaj amul seen képp ku ñëw si moom dina la déglu bu la waree digal digal la te sëriñ bi ay waxam lu mu yàgg-yàgg ak lu mu néew néew du génn njàngaleem sëriñ Touba Xaadimu Rasuul la fan Ndour ci télévision Futur Média yëkkati na ay kàddu wax ne ñaari at ci ginnaaw am na ay borom xaalis yoo xam ne génn nañ ay milliards teg ko ci taabal bi jël ay journalistes yu nekkoon groupe Futur Média dem créer ab groupe ngir nag daaneel li nga xam ne mooy groupe Futur Média waaye ñoo ñooñu mujj ñu see am ndam kàddu yooyu est ce que nag du Mamadou Ibra Kane moom moo ko mooma li am ba des mooy Mamadou Ibra Kane ginnaaw bi mu jugee groupe Futur Média ñëpp xam nañ ne bu doon ay lamp la ñu ne ay lampam dafa daal di fay kamaca te nag àdduna dafa am ñoo xam ne dañu ko ñàkk xam ab groupe de presse nga jàpp ne yow yaay kàngam bi wala yow yaa aay wala yow yaa foor waaye boo fa jógee di nga xam ne na nga mel groupe bi moo la ko def jamono ji ñépp xam na ne Mamadou Ibra Kane ma nekkoon groupe Futurs Médias ak mii wuute na lool est-ce que du Mamadou Ibra Kane dafa bëggaat buzz wala dafa bëgg aw turam toll fa mu tolloon Mamadou Ibra Kane ban njariñ la am ci réew mi bay wax ki sëriñ bi war a recevoir ak ki sëriñ bi warut a recevoir ku wedd lii defalub sondage laaj askan wi Mamadou Ibra Kane Clédor Sène ak Assane Diouf kan moo ëpp njariñ ci réew mi teewulee day di nga dajeek Sénégal yu bari yoo xam ne danañ la wax na la Assane Diouf ak Clédor Sène ñoo ëpp Mamadou Ibra Kane njariñ ci réew mi Mamadou Ibra Kane ak jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi ndax yenn yi mos ngeen a dégg mu yëkkate si ay kàddu daal di ciy wax déedéet di laay wax ndax ca diiwaanu Dugaar foofee askan wa fa yeewoo fukki at a ngi nii ñuy jàmbat lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay hectares yoo xam ne ay société privée ñoo ko ngar dajjoo est-ce que Mamadou Ibra jafe-jafe sa dugaar est-ce que Mamadou Ibra Kane mos naa jël xalimaam wax ci médecin yi nga xam ne ñoo ngi waaja dem ab grève ngir nag laaj décret reclassement bi nga xam ne ba léegi mbir ma ma nga yeex di layaam layaamal engagement bi Pape Alé am ci askan wi jege leen engagement boobu lan moo tax Mamadou du Kane amu ko askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Fuuta di mbay mbayum noor ñi naan ko mbayum dër soble carotte ak nawe ak supame ñooñu bu ñu bayee at mu jot li ñuy ñoral dafay mujj yàqu leen li pour furwaat réew mi amu ko est ce que Mamadou Ibra Kane mos naa wax wala mu bind ne Sénégal jot na mu am ay infrastructure de conservation yoo xam ne ngi mbay mbayum dër ci Fuuta wala sax sa zone des Niayes am fu ñu ko denc Mamadou Ibra ibrakan mii jot na nag ñu daal di koy jox lu toll si juróomi seetu ngir mu nag xoolaat boppam